fii ci quartier Sourah nekkee ci Touba bokk na ci quartier yi nga xam ne ndoxum taw mi da na a sonal lool waa koñ bi ni nga xam ne noonu la koñ bi mel jéggi dayo ba tax na ñu génn di fësal jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund bés bu yàlla sàkk. li ko waral mooy fan yi yëpp ñu ngi constaté ne taw bi bari na lool te fii ñu dëkke nga xam ne chaque année nii lay mel daanaka sax bii mooy deuxième fois ñuy génn kon lii day firndeel ne sonn nañ ci ndox mi te bëgg nañ ci wàllu te gisugi ñu taxaw ñun nag suñu yittee lenn la mooy ndox mi ñu dimbali ñu ci ngir yàlla ak jëmmi Serigne Touba mu jóge fi léegi nag defoon nañ benn sotti wax ci ba léegi gisaguñ réponse li ñu waxaat mooy lii ñuy def nii dañoo bëgg ñu jàppale ñu ci jële fi ndox mi parce que gis ndox mi ni mel ñaaw na lool ci koñ bi tey Touba bu doonoon yenn ville li ñuy wax mën nañoo wax ne yoon bii ñu dëkkee moom mooy doon route nationale bi. mooy deuxième fois deuxième fois ñu def interview euh, bu njëkk ba yaakaar naa ñu bari seetaan ko. tey jii tamit dina demewaat noonu euh, yaakaar naa nag ndox mi moom ku ku nekk gis nga ko ku xool ku xool ku xool ndox mi xool couleur bi nii xam ne lii nii du ndox moo xamante ni ndoxum taw ndoxum taw dong la. ñoom ñuy joxoñ baaraamu tuuma maire bu Touba ak honorable député Abdou Lahad Sadaga mi nga xam ne ci quartier bi la dëkk ndax nee ñu yëg na lii waaye jiimu ci dara. ni bi mu tawee rek foofu dafa jël ndox ba pare ndox ma dafa ba ñu jugee te waxoon nañ ko daaw kon moom mën naa ni la mu defoon daaw sax du defaat da doon yàq te lam soxla woon am na ko muy ay image la am ñun gis nañ ko nag euh, muy muy muy wane ni faa faaliwut waa koñ bi loolu la wax euh, parce que ay ay ay ay ay euh, vidéo ak kii comportement am loolu la wane muy faaluwut waa koñ bi faaluwut xale koñ bi sa sama yónneeku ci seen interview yi ngeen def da ngeen di dund si ndox mi yéen xam dee leen interview maanaam euh, taxawaayam loolu la wane. Claude Seck saa dàgga ndax moom laa nekkaloon ba ba ma nekkee ci APR 2012 ba tey mu xëy. estati ay vidéo daam ndax lim lim lim lu koy vi ci ay autorité viwul suñuy estati fa yow a àgg mën a àgg fa waaye li mu estati tey ñoo ngi koy xamal ne ko du du ren daaw la woon te déclaré nag guerre guerre bi du yem fii daaw la woon ñu dara Lat Seck ñun ñuy àndoon ak moom daaw ba ren defaluñu dara ñoo ngi nii ndox maa ngi nii verte verte verte nit ñi ci lañ nekk seen tànk yaa ngi yàqu ñu dëkk ci kër yi sonn nañ ñoo ngi ni sonn bay bëgg a dee. moom avant avant kenn du ko xam avant muy doon dara. muy nekk député ñun ñoo ko daan jàppale fii nii fi ndox mi gën a bëree tey fi la daan woote ay meeting ñun ñi ñoo daan dajale waa koñ bi dajale eh, xale jigéenu koñ bi dajale mbootaay bi ndax liin bokk koñ waaye bi mu toogee ba tey jii dafa fàtte loolu démb nag gis nañ ko vidéo yi ñu def yaakaar naa ni li ma ko wax rek l'article tu n'es pas plus intelligent que nous gënoo ñëw muus loolu laa ko wax si si si si si si loolu laa ko wax si si WhatsApp ne ko gënoo ñëw muus mais mënul moom bi jël waa koñ bi yóbbu leen liggéeyloo leen te gis na ndox mii te yàlla xam na ne bu këram taawoon tey dana ci jël dana jël solution. Laat Seck amul njariñ ci koñ bi ñoo ko wax te lii du lam vidéo tey du ndoxum ren ndoxum daaw la ñoo jégg am na ay dëkkandoo yoo xam ne sonn nañu ndax ndox mi ba tax na sax jamono bi génn nañ seen kër yi dem uti faneen fu ñu dëkk. mu nekk jafe-jafe yoo xam ne kilifa yi war nañ koy bàyyi xel saa su ne. kon am na ñoo xam ne tey dañoo génn suñuy dëkkandoo. génn dem te kenn ku ne xam ne ne dëkk si kër mu taa amoo foo jëm dafa métti benn exemple rek maam jëng femme mi génn na ba dem ak yeneen kër mën nañoo cité ay kër yu bëri bu ñu cité nag dañuy juum léegi nag ñoom ñi nga xam ne am nañ ay kilifa yoo xam ne jege nañ leen même bu mënee àgg ba ci seen mu taxaa xéemuñu ko. ndox mi ni mu mel ci quartier bi boole ci salte gi ak xet gu bon gi nga xam ne moo fi bàyyeekoo mën na indi sax yeneen i feebar. boo xoolee ndox mi taq na tilim te lii neex a xuus am na ñoo xam ne fii seen kër. dañu xuus dugg xuus génn te dañuy liggéey wut luñ jox seen njaboot kooku nag mënul toujours muy xuus génn xuus dem maanaam am na yeneen feebar yoo xam ne mën leen daal sax ñaanu luñ leen ko mais nañ ci gaaw na xam ne ñoom ñëpp képp kuy seetaan rek maanaam dalaa dalul. askan wi nga xam ne ñoo nekk ci quartier Soura bu Touba bokk na ci li nga xam ne moo leen gën a métti mooy député bi nga xam ne moom moo di Abdou saadaaga dañ ko yàgg taxaw ci quartier bi jàppale ko waaye dafa mel ni da leen a ginnaaw faaleetu leen. léegi comme que moom lañ dénk maire bi moom nañu wax moom lan la fi def bi ci des mooy Abdou Lahad sa Sadaga moom dégg nañ ko aussi mu génn def sorti moom it euh, di wax li fi liggéey di dugal ay vidéo moom yaakaar naa boppam lay nax moom it chef de quartier wala chef de sax mënu koo jiite. màggal gi léegi mu ñëw waa Soura di sàkku ñu saafaral leen mboolem jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy dund ci jamono bi ci seen quartier bi ndax dañuy séentu ay gan. am na foo xam ne bu fa jaaree ndox mi. danañ ko mën a jël évacuer ko mu dem ci canal yi wala ñu manqué ko buñ ko manqué sëkk ko suuf balaa premier safar yàlla mën nañoo suturaal mu bañ a tawaat kon lii bu dee yàlla dëgg la bëgg mënuñu koo màggale